jërë ngeen jëf ku xëy xool xibaar bi ci xët mu njëkk l'observateur foo jaar laaj fu réew mi jëm ubbil yéenekaay bi ñàkk kaaraange gi ci Sénégal ak ni muy gën di màggee bés bu yàlla sàkk la l'observateur sukkandiku ba bind ne tiitaange ci Sénégal ku ñu teg loxo ci manifestation yi amoon ci réew bi di ko toppee jëfi terrorisme mbiri financement yu jige bitim réew ngir dooleel ay nit di nekk ci réew mi ba ñu salfaañi réew mi ak ñu ñu tuddee ay force nañu ci ñeenti téeméeri doomi aadama ak fukk ci ndakaaru ak ñetti téeméeri nit ak juróom-benn ca banlieue bu ndakaaru jàpp nañu fii ci ndakaaru fukki jigéen ak juróom-benn yu bokkoon ci yu doon manifesté jàpp ca banlieue bu ndakaaru ñetti jigéen ñu doon manifesté am na it ay mineur yu bare bare yu ñu teg loxo ci manifestation yi secteur privé bi ci réew mi l'observateur mi ngi ñuy wax ne wax nañu ne li ñu ñàkk ci manifestation yi femoon kenn xamul nu mu toll Le Quotidien nañu waa CNP di conseil national patronat ñoo doon def démb ab conférence de presse doon fa leeral loraange yi ci manifestation yi amoon ci réew mi waaye facture bu saf sàpp la ñu génne wax nañu fa lu ma téeméeri station essence ñu yàqate fanweeri agence banque ak benn yu caxat-caxate magasin Auchan yi li ñu leen yàqal tax na ñu jël dogalub yóbbu ci chômage technique lu mat ñetti téeméeri liggéeykat 300 employés la waa Auchan nar ndax ñàkk lu mu leen fay waa Wave xam le ne ñàkk nañu chiffre d'affaires bu toll ci 40 pour cent conseil national patronat yéenekaay bi nee nañu wax nañu it ne secteur tourisme bi ak transport maritime bi ñoom it dee wet la ñu def ci manifestation yi journal bés bi le jour dolli ñu ci ne waa CNP nee nañu bu ñu moytul fi yam naa dem ba jur ak yokku ci njëg ci marché marché bi journal l'info bind ne patronat bi mi ngi xayma li privé bi ñàkk ci manifestation yi boole ceeg di alerté ci lorange yi mu mën a jur bëy di añ ak i gaayam di xam ne ne bu ñu deful ndànk dinañu gis ci réew mi coono bu raw bi ñu dundoon ci jamonoy coronavirus bi journal Les Échos bind ne pétrolier yi ñoo ngi jooy ñetti milliards yu ñu yàqule banque yi ci réew mi di jooy ñetti milliards yu ñu yàqule waa Wave di wax 40 pour cent yu wàññeeku ci seen chiffre d'affaires Sonatel ñaari magasin yu ñu bu leen caxat-caxatee leen sàcc la fa nekkoon jël yóbbu anki dina kay nañu ci xëtamu njëkk secteur privé bi ci réew mi ci faj ay góomam ca la toll muy yóbbu leen ci vox populi mi ñu xibaar ci xëtamu njëkk ne ministre intérieur di Antoine Diome xam na ne dinañu def ab enquête ci nervi armé yi ñuy gis ci manifestation yi manifestation yooyu ak fukki bakkan ak juróom-benn yi ci rot bi nee nañu waa organisation des nations unies ñoo ngi sàkku ci Sénégal mu def ci enquête réew mi quotidien nañu organisation des nations unies teg na ay gët ko ñu bàyyi ponk boobee te wax ci beneen ponk mu di wàllu njàng meeg njàngale mi l'observateur jox Sud Quotidien Source A Le Mandat Vox Populi lii Quotidien ak journal L'Info ñoom ñëpp xëy nañu di ñu xibaar li tukkee ci ndaje mi amoon démb ca jam ñaajo ci diggante ministre éducation nationale ak syndicat yémb ay jàngalekat L'Observateur na ñoon ndajem waxtaan la woon wu ñu doon waxtaane ay pexe ki yoon yu ñu mën a jaar ngir indi ak dal ci année scolaire bi mu ne woon ci teewaayu ministre éducation nationale Cheikh Omar Anne ak délégation yu SAEMS CUSEMS ak seeni secrétaire général di El Hadji Malick Youm ak Ndongo Sarr wàll yëpp yéenekaay bi nañu waxtaan nañu ca ndaje ma ba déggoo fexe ba benn perturbation discrimination bañ a amati ci njàng meeg njàngale mi fukki ponk ak benn l'observateur ne nañu ministère éducation nationale ak syndicat jàngalekat yi waxtaan nañu ci ba juboo ci sursoi nañu muy li jëm ci comité suivi bi war a toppatoo accord yi situation enseignant décisionnaire mbirum prélogement yi ak paiement rappel yi terrain jàngalekat yi situation maître EPS yi formation diplômante yi ba ci mbiri Abdoulaye Diatta Corne Lambal di ñaari jàngalekat yi ñu suspendroon ci lycée bu jululu lépp la ñu waxtaane démb ministre bi xamal fa syndicaliste yi ne ci wàllu woowee état bi dana seet nu mu ci dugale yërmande teggi tànkam ñu jaar fa ñu war a jaar ba ñaari jàngalekat yooyu ñuy suspendre delluwaat ci classe yi jàngale ji ñu dem ci lambu ji ak sunu lambu mi xëye mbir mu mu seetlu ci lambu ji ay mbër yu am combat bokk ci ñuy tuddee ay VIP ci lambu ji ñu bari ci ñoom jox seen CNG bi ab certificat médical buy wane ne seen wér gu yaram du leen mën a may ñu bëri ci dates bi ñu am combat xewit woowee ci la sunu làmb sukkandiku ba gis ne VIP yi ñooy plombé arène bi. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su nekk ay